sëñ sëñ sëñ Bass mi ngi nii di egg si sëñ Bass moo jiitu moo nekk noonu si kanam Moussa Mandoye ah ok batterie bi Cheikh Béthio moo nekk noonu di waaj a ñëw cortège bi dugg na ba pare Serigne Bass Abdou Khadre moom moo jiitu moom moo nekk ci kanam otoom yeneen oto yi moom mooy taalibe Cheikh Béthio yi ak tamit ay njabootam mbokk yi oto sapeur bi nekk nii ci gannaaw moom la kooru Cheikh Béthio nekk ci biir gannaaw bañ ko jullelee fële ci armeer yi jaarale ko fi nga xamante ne moom mooy kër Serigne. Cheikh saaliw di doom si sëriñ saaliw gannaaw ba mu jox ko ñoom ba pare dañu dem ñu defar ko julleel ko doog ko andi fii nga xamante moom mooy almeeru Baxiya ñii nga xamante ne ñoom ñooy taalibeem ñoom ñoo taxaw nii di wane seeni cofeel seeni bëgg seeni dogu si nga xamante ne moom mooy seen sëriñ Cheikh Béthio Thioune mbokk yi image yi ngeen gis nii nekk na image yu tiis image yu metti ci xol gëm dong wóor gëm rek ko wóor ki nga xamante moom nga yaakaaroon àdduna ak àllaaxira nekk nii da la romb di dem ci almeer yi nga xamante moom mooy almeeru Baxiya oto bi rek xaw na mbëkk tuuti oto sapeur bi ñoom ñaar ñu may leen rek ですよね。 waxul fii sëñ bi waxul fii attendez non pas ils ont vraiment nous sëñ Béthio sëñ Béthio pas dit ça sëñ Béthio en tant que cheikh de Serigne Saliou su ma waat faatoo dem ba ci jardin bi su leen ma fii ñi dañoo war Serigne bi ndigalu Serigne Touba lañ jël teg ko ne ñi nga xam te ni mos ñoo ànd ak sëñ Béthio bàyyi ba tey ñu jël ñu jël sëñ Béthio dañoo war Serigne Béthio barki Serigne Béthio o damaa toog damaa toog ma ne bis bu ma fi jógee bu leen seetaan mukk ñu may jaga-jagatee di ma yóbbu fa neen man maa ko fekkee man maa ko fekkee gëmuñu la sëñ Bada moom ñu dara suñu bakkan moo ñu ko wax boppam ma di salaam la bëgg dëgg la ñu nëbbuloo

Serigne Saliou xel xom laa ne woon. sëñ Bethio moo ñu ñu woon sëñ Saliou mës na bëggoon. sëñ Bethio moo ñu ñu woon da ngeen jaxal seen bakkan. trahi le Cheikh doon trahi le Cheikh on s'en entendait d'autres fois. ay seytaane yi moom ngeen yow. alors. ndigalu Serigne Bethio ngeen teg mosu leen a jàppale sëñ Bethio. sëñ Bethio jàppale leen ko sëñ Bethio jàppale kenn deful intervention. waaw ñun. ah tey ngeen gëm sëriñ. naa fekk rek yi ñooy wax naa a ma muur. dama si yàq na dama yàq na ñuy def na ay maa ngi ah, bi boo ba gënoo fii yow ak xiyam naa ko yow ak yéen moom moo ko wax sëñ Bada na saraam mu ni na ngeen jaay seen bakkan bii nañ ma denc mbuur. man na sa sama dëkk bii man maa ko wax gëmuñu kenn ku dul sëñ Béthio a ah, du doom du dara sëñ Béthio moo toog demal na sagam man su ma fi jugee samay doom sax réew yu ma nekk bu ci nekk bu nga leen top sëñ Béthio wax loolu man maa ko fekkee man maa ko wax ñii méritoowuñ sax doon ay doomu sëñ Béthio waxtaanuñu kenn amuñu communication ak kenn mosu ñoo toog ci keppaaru sëñ Béthio duñ fenn ku ci ba gis leen te ñu taxaw naa la ay man maay nanga maay fa mu yàlloon may ma def solo Serigne Sall jëfee Serigne Béthio lu mu wax lañ war a jëfee ndigalu Serigne Béthio lañ war a jëfee ñun Serigne Béthio lañ gëm barki Serigne Béthio Serigne Béthio mooy suñu les propos du Cheikh ils ont détourné les propos du Cheikh ils ont détourné les propos de notre guide leen tàkkal bali suñu kaw ba xam gëmuñu leen sëñ Béthio rek lañ gëm sëñ Béthio point sëñ Béthio lañ gëm gaa yi dañoo war sëñ Béthio sëñ Béthio ndigal li mooy madinatu salaam sëñ Béthio mu ne digal naa leen su ma faatoo ngeen denc ma fii madinatu salaam ànd ak ñun dem ba fi ñu ko denc wan ñu mu teg xeer ne ma faatoo denc leen ma fii njabootam gi war Serigne Béthio waaye dinañ ko laaj Serigne Béthio ñun ànduñu ñun ànduñu ngeen Serigne Béthio Serigne Béthio yemul ni fi taalibeem yi ñi desati ñëpp foofu ngeen denc.